niñ koy dundee métti na ndax salte bi métti na gis nga tooyaay bi ni mel nii xam nga ne lii doomu góor ku koy dunde do jàll feebar nañu ba mënatuñoo feebar moom kay ay saa fi ñëwee jël nañ suñuy wax yóbbu defuñu fi dara waxi kese lañ fi def waaw nañ ñëw defar suñu marché bii buñ bëggee ñu liggéey liñ fiy génne ci juuti kenn du ko fi génne xanaa am lu metti rek ndax ñu bañ a jox marché bi gëddu waayam bañ koo jox wàccu waayam dëkk di léggéey du bàyyi njaari bàyyi mbudaay gi te marché mbudaay gii kat li muy génnee macha allah kenn gëggu kenn mënu ko kon nag war nañoo ñoo jox suñu wàccuwaay jox na suñu gëdd gis nga mbalit mi gis nga dox mi feebar nañu malade nañu mën ñoo jaay mu jar kenn dugatul ci marché bi ne dafa salte waaw ndax fi ne ne moom ku jullit xool lii doon nit ku baax bëgg lu baax boo dikk ci marché maam jaara ji ci marché maam jaara ji nga war koo jox wàcc waayam ndax ñun de desee nuñu leen dara ñun duñu aara ñun dañu dagg ticket say wuñu xëyee ñu ngi dagg fanweer suñu xëyee ñu ngi dagg fukk ak juróom kon nag war na ñoo jox suñu wàcc waay ba ah xanaa dund ko dundin wu metti te nag ñun ñu ngi fay suñuy droit ba mu mot ñoo ngi dagg juuti lépp lu ñu war rek ak mairie bi ñu ngi koy def ñu ngi koy matale bu baax a baax a baax mais xam nga ne lii bëgg a tekki dong moo ñu bàyyi ci marché bu mel nii parce que lii moom pour nga mën koo digérer ah xanaa di nga fas jom lool lool lool lool lool am loo bàyyi am loo dëgg ma mooy waral nga mën fee mën a nekk rek une heure de temps bu mat waxuma laa na ngay xëy yend fi huit heures ba midi jaaduwul te ñoo ngi dagg suñuy juuti lépp lu ñu warloog mairie rek ñu ngi fay suñuy droit ba mu mat sëkk yëpp nag lañ defar ba mu des marché maam jaara mu waroon a jiitu nag ci marché yi ñuy defar nit ji dund de métti na torop ndax gis nga xet gaa ngi nii xasoo xunnu kenn defaru ko te juuti boo fayut juuti ñu kër yee la coow lu du jeex du xaaj sonn nañ ci marché bi bala ñoo tuur ndox dugg ci kër jàmbur yi bala ngaa dem toilette dugg ci kër jàmbur yi te xam nga ne loolu sew na ci marché bu maam jaara bii war nañ ñoo defaral ay ay toilettes yu ñuy war di suturloo ndax ay mag a ngi fi ay gone a ngi fi te du foo toll nag nga mën a muñ ba dem ba sa sa kër nañ ñu jàppale ci marché bi miireel ñu ko bëy dañuy lekk suñu jaay bi ñuy jël fu leen neex la ñuy jaar xam nga sàcc moom fu ko neex lay aw génn aw yoonam dem doo xam fu mu jaar bu doonoon ñaari bunt wala benn bunt bu ñu jëlee bala ngaa génn mënees na laa kar feneen waaye bëy yi dañuy jël nit ñi dañuy jël marché baa ngi neex nii xasoo nu salte bi bëgg dee